Euh, kër sëñ Tuubaa gi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi leen di dégtal li fi xew euh, nga xam ne mooy njàngum xasida mi nga xam ne mu Mouhamadul Mountakha Mbacké moom la dénk Hizbut Tarqiyyah ngir ñu taxawu njàng moomu li dalee tàmbali benn fan bi ba weeru koor wi di mat loolu nag boobu ba tey ñu ngi koy dundandoog yéen euh, kuréelu Hizbut Tarqiyyah yi ñu tànn ñu fàttaliwaat ne juróom benn la ñuy doon kon ay ay loo dana ci am bu am ñu ñëwee bu ba ëllëgee ñeneen dina ñëwaat su ko defee kon euh, kuréel bi nga xam ne moo ay njàng mi tey mooy kuréel bu Rufisque kuréel Tëngéej ñoom ñoo yore njàng muy kuréel 1 bi nga xam ne euh, sëñ Cheikh Samb moom moo jiite njàng mi euh, ñoom tamit li ñuy ànd ki ñu ànd liggéey boobu mooy waa kuréel Louga ndax kuréel Louga ñoom ñoo war a gàttandu sëriñ bi ñoom ñoo ko war a gunge bu njàng mi àggee loolu mooy programme bi nga xam ne moom la ñu àndil tey ci fukki fan ak benn ci weeru koor dëppook 24 avril 2021 fii nga xam ne mooy kër euh, sëñ Touba gi féete ci sowu jumaa ju mag ji ci Touba kon loolu mooy programme bi tey euh, ngir gën ko faram nag danañ jox kenn ci waa kuréelu Tëngéej muy sëñ Xaadim Samb moom danañu jottali programme bi yan xasida lañ fi nar a jàng tey ak yan daaj lay doon ci kanamu Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké euh, ñuy sant ñëpp di ndokkeel ñëpp ak di leen sant ci teewlu gi kon du ñu def lu dul jébbal kàddu gi sëñ Xaadim sëñ Xaadim Samb kon eh, yow ci kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej nga bokk eh, tey yéen ay njàng mi ci bisub eh, samedi bii nga xam ne mooy fukki fan ak benn ci weeru koor ñu bëggoon nag nga jottali ñëpp li nga xam ne mooy programme bi nga xam moom ngeen ñu andil tey ci wàllu njàng mi. salaamaaleykum sëñ Mansour ñu ngi ziar baax waa tey programme bi nga xamante ni moom la ñu waajaloon ngir jàng ko maanaam madaliyal xaqul mubin madatulillaahi yadi waa kër sëñ Masamba kër Soxna Fàjja ak salaamun xadimin daaju sëñ Mouhamadou Lamine Gueye ak jaalibatul maziyaati wa daafi raziyaati ñu ko xam ci Hamad Souleymane daaju sëñ sëñ Moussa Diop ak alhamdulilahi rabbil alamina daaju sëñ Moussa Diop ak farij iskarxiya moom lañ fas a jàng sëñ Xaadim defe naa ne lii mooy ni ngeen ko dégg programme bi nga xam ne limub xasida yi mën naa wuute waaye waxtu wi nga xam ne njàng mi moom lay doon du soppiku kon benn waxtu lay doon 17h30 bu sëriñ bi yegg yegsee ci salle bi euh, dana teewlu njàng mi ba 18h30 muy benn waxtu euh, defe naa ni kon euh, lii mooy lii programme bi ñëpp di séentu ñuy ñaan ñu ànd ko ba mu àgg te sëñ bi defal ñu ci tawféex yëpp ndax bépp tawféex dañu leen si xasida yi sëñ jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax mën ngaa dellu defe naa ni kuréel gaa ngi lay xaar te liggéey baa ngi lay xaar jërëjëf ci leeral yi nga xam ne andil nga ko kon euh, ni ngeen ko déggee kon kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej ñoom ñoo ay njàng mi tey euh, ñii ngeen dégg ñuy jàng fi mu ne nii di xaar sëriñ bi yegg si moom mooy kuréel 1 bu daaray Louga ñoom ñoo nekk ci biti noonu def ay sàppe di xaar sëriñ bi yegg si bu yeggsee ba sëriñ bi euh, dugg ci saal bi ñu daal di jox waa Tëngéej ñu jàng bu njàngee ma àgg ñoom ñu dikkaat gàtta gàttandu si sëriñ bi ci bunt bi gunge ko ba mu àgg fa mu jëm kon tey jii ci benn fan euh, fukki fan ak benn ci weer Ramadan dëppoog 24 euh, avril 2021 lii mooy programme bi nga xam ne andil nañ leen ko sëñ Modou Kébé euh, ñuy sant bu baax.